asalaamaaleykum mbokki téléspectateur de Rewmi TV ak mbokki auditeur de la 97.5 dal leen nag jàmm ci seen émission Rewmi People comme chaque samedi dinañ toog ak benn ndaanaan tey ñu am mbégte dalal Abdoulaye Diouf alias Serigne Ngagne gën ko xamee ci wàllum théâtre comédie Serigne Ngagne ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi di la seytaan ak di la déglu. waaw maa ngi leen di fay di wax. waaleykum salaam euh, di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. góor ak jigéen mag ak ndaw. di nuyu mbokk internet yi nga xamante ni ñooy seetaan réew mi TV ak auditeurs yi nga xamante ni ñoom ñooy déglu réew mi FM. Euh, di nuyu sunu fans yi sunu supporters yi nga xam ne lépp lu ñu def ñu apprécier ko. Eh, di la dalal jàmm. Mm-hmm. te di la déglu. <laughs> Euh, léegi ñu tàmbali alors Serigne Ngagne lan moo waral euh, nga choisir euh, def théâtre. lu tax ma choisir ko. Mm-hmm. Ah, loolu moom lu may sawar pour tontu tontu la nit ki moom lu mu choisir c'est parce que daf ko bëgg. Mm-hmm. kenn du tànn loo bëgg. bu nu jëloon cent paires daal teg ko fii. ne kenn ku nekk jëlal benn peeru daal soo dikkee ci biir cent peeru daal yooyu yaa xam style bi nga bëgg ak couleur bi nga bëgg da ngay ñëw rek nga jël ko kon kenn ku nekk li nga bëgg ngay tànn kon man bëgg théâtre bëgg ko mm-hmm. dund ko mm-hmm. juddoo ci milieu boo xam ne màggee fa lool dama ko fa fekk peut-être xëy na loolu moo tax man ma bëgg ko ba def ci choix d'accord alors ñu gis ne aussi que yàgg nga trop ci milieu théâtre bi léegi ndax euh, say début euh, métti wu loon ndax c'était pas très euh, compliqué. waaw ci xam nga àdduna moom lépp loo xam ni dañ koy door rek. Mhm. yaakaar naa ci jafe-jafe ki metti metti lay tàmbalee. d'accord mais toujours nit ki lu muy xaar mooy mujjantal ga te lu muy xaar ci mujjantal gi mooy mu neex. Mhm. parce que tey boo jëlee sa benn garab nga jëmbal ko ci suuf si. jël loo xam ne mën nga ko aare ba dara du ko mën a yàq. Mhm. pare continuer chaque jour nga koy arroser. yaa ngi xaar tey garab boobu subam mu nekk pom mu nekk banana mu nekk leneen mais yaa ngi xaar fruits yi suba yow euh, nga am ay résultats parce que mooy coono bi nga doon jëm mooy nga jariñoo ko bés bu demee ba toll fi ñu ko war a jariñoo nga jariñoo kon. exemple laa joxe ne aar ah, noonu la mel début bi dafay metti dafay difficile ñii mhm. mën nañu ànd ak yow ñii du ñu ànd ak yow sa yaay mën na nangu mën na bañ a nangu sa papa noonu say mag noonu mais bu ñu xamee ni da koo bëgg ñu xam ni gëm nga ko ñu gis nga ci doxe ful la ak fayda boo xam ne xam nañ ni da koo def métier nekkoo ci di fo fooy woo ko mais da koo def métier di ci liggéey personnalité bi ñu gis nga ak engagement bi ngay am peut-être xëy na dina leen permettre sax tuuti ñu commencé di la suivre ànd ak yow parce que dañuy xool ba xam yow lii ngay def lan nga ci bëgg parce que sama papa mos na ma ko wax ni ma am fo la mais bul ko foowe mhm. parce que bu nekkee am fo ba pare nga foowe ko fo mi dina la mujj foowe mais bu nekkee fo ci waxin bu nekkee fo te foowe wooyku suba mën na la jariñ ci waxin mhm. du fo mais mën nañ ko jàppee fo ki ko jàppee am fo fo doon ci moom mais ki jàppee ni du fo métier la du foo ci moom parce que wax dafa am solo mais dégg-dégg moo ko. ok sànq yaa ngi tudd euh, sa papa ak sa yaay léegi ñoom bi ngi leen annoncé nii comme quoi da bëgg def théâtre lan moo nekkoon seen première réaction ndax début bi ils étaient réticents wala dañ la encouragé comment ça s'est fait. waaw xam nga boo juddoo ci yenn koñ yi. Mhm. màggee fa yaroo fa lu ne am fa. Mhm. nga dundundoo sa papa ak sa yaay toujours li ñu bëgg mooy benn doom boo xamante ni bu ëllëgee mu nekk référence. Mhm. kenn ku la loolu nga bëgg ci sa doom nga am ko wala nga bañ ko doom boo xamante ni du jàdd doom boo xamante ni kenn du ni moo wax lii wala moo def lii wala moo jël yëfu jàmm cest à dafa am ci famille yooyu juddoo yooyu soo ko jéggee boo gis ñu la ci yooyu ci leneen loo nekk rek ñoom dina la dina la ci encouragé et que ñoom xamoon nañ ni man. lii laay nekk. Mm-hmm. ñoom xamoon nañ ko parce que tey yow sa biir kër sa doom yi nga nekkal sa biir kër am na nu lay yàlla mayee kenn ku nekk xam nga di nga xam lan mooy cëram. di nga mm-hmm. xam sa doom yi ah yow li nga soxla boo xoolee da nga naan diw mii su màggee lii diw mii su màggee lii comme ni ko la di waxee da nga xam say doom yi ndaw nga ni diw mii ku baax la xaw ma kañ lay doon mais bu màggee lu mu am dina ko bokk nit ñi parce que da ngay gis xale nga jox ko mburu bu ndaw sax. xool moroom yi mu àndal kenn ku ne mu daggalu ndaw jox la nga xam ne kii joxe kat la su màggee bu amee dina joxe nga jël xoola mise pain jox ko benn xale xale yi toog mu jël ko dugal ko ci poosam du may kenn lan la lay wan kii moom bu amoon milliard yi du ko bokk kenn day am maanaam dangay nekk xale di def ay gestes yoo xam ne dafay wan ne yow boo màggee bu fekkee defaruñ la ba nga màgg ci nii nii ngay mel parce que résultat après lay fay mm-hmm. mais man avant may commencé di def art di def théâtre dañ doon gis ñoom toujours fu ma toog rek damay damay def te boobu xale bu tuuti la nit ñi di reetaan nit ñi di ma wër su ma jógee Dakar ñëw sama kër ma am Pikine añ ba pare dañuy dëpp bool sama nijaay day jël xaalis teg mhm. waa sama jabar moo togg tey tey ku wax lu gën a neex rek ci sama jabar lu mu def rek ma may la téeméer wala cent franc boobu cent franc comme million ci ma mhm. ay six ans sept ans huit ans mais su ma commencé di wax te ki may wax sama rakk sama ci sama yaay Mm-hmm. su ma commencé di wax rek da ngay gis koñ bi ni ñuy dawee sax ñu taxaw ci kaw mi bi di seetaan naan booy bi kees la booy mooy mooy mooy ñëw di jaxase koñ bi genre yooyu te boobu xale la mm-hmm. wala ñu lay utal ay surnom di la wax kii mooy diw te boobu xalaatuma sax naa def ji ah man damay toog di fàttaliku loolu mu yàgg trop boobu ay sept ans huit ans la mm-hmm. que ñoom war nañoo commencé xalaat ni kon kii am na lu sunu boroom def ci moom man nag bokkuma ak ñi nga xam dañoo dem ba am 30 ans 20 ans 25 ans dem def aar aar dafa teel a ci kattanu suñu borom ak baaxam du man yàlla la yàlla teel koo def ci sama jëmm li ma lay wax lu garaaw la c'est-à-dire li may wax nii. Mhm. dama koy wax peut-être pour kii seetaan xam ko mais ñi nga xamante ni seen kanam laa yoroo ñu yar ma lii may wax nii ñoom ñoom boo demee ñoom ñoo la koy nettali wala am na sax loo xam ne man ñoo ma koy fàttali parce que bi may am xale d'accord maa ngi fàttaliku bi ma nekkee xale mos nañ ma solal benn yére Baye Fall jaxas mhm. ak benn baxana bu gudd may dem Kawsara mhm. di dem kër sëñ Assane Fall Kawsara ànd ak sam benn jabaru maam damay fàttaliku jour boobu nit ñi dañ doon génn mhm. nan kaa leen xool Baye ndaw bi di ma seetaan jour damaa dem sëriñ bi jël ay wet ci jox ma ko maanaam sama maam da ngay sàcc xaalis jox ma ko ma téye fekk xaalis bi yëpp 40 francs ci jamono boobu mais man maa ngi fàttaliku fi ma jaar ci mbedd mi fu ma jaar nit ñi dañuy daw génn di ma xool maa ngi koy fàttaliku nii. kon loolu déjà c'était quelque chose. loolu il faut ñu gëm jàpp ni suñu borom kenn ku ne dafa am lu mu lay may avant télé avant ngay taxaw sur scène avant ngay jàng théâtre avant ngay def benn formation kenn ku ne am na lu ko yàlla may. gis nga des fois di nga romb ci football mbedd yi benn boy di football. Mm-hmm. mais di nga gis benn booy ñu daf passe mu téye bal def benn contrôle orienté boo xamante ni wala def benn geste boo xam ne da ngay da xam ni kii nii ah tey jii bu duggee école de football dina tas àdduna bi. si si ndax demagul école de football day am. ok sànq yaa ngi ne aar euh, bi dafa teel a dugg ci yow donc entre six euh, et sept ans boobu yaa ngi doon jouer comédie à ta manière léegi est-ce que mën nañ ne Serigne Ngagne il a fait des études waaw wala déet. waaw. ban classe nga yem daara daara. donc en gros euh, demoo école française. mais damaa bàyyi dem ah bon pour ah parce que da ngaa bëggoon def. Euh, parce que damaa bëggoon ok ñu gis ne aussi euh, Serigne Ngagne da danga arrêté euh, théâtre classique pour série lan moo waral loolu. damaa ay. théâtre classique mais théâtre bu njëkk léegi pour jublu léegi ci série. non non non non. Mhm. je rectifie. oui bàyyi comédie bi nga xamante ni à l'époque moom la neexal woon. d'accord. mais nag bàyyiwuma dara. Mm-hmm. maa ngi def comme li ma doon def mais lu may wax chaque jour nit yi mooy que ni lépp loo gis dafay avance mm-hmm. buy avancer nag affaire day changer mooy que ni style bi nga doon def ci comédie 2004 léegi ba léegi am na ñu koy def. si si gars yi di ko apprécier bu baax mais tey jii nii man loolu mënutuma ko def. li ma defoon 2003 2001 2004 ci style boobu. Mhm. moment demaat du ko def. mi ngi mel ni ko moment boobu caméra yi ñu doon tourné sax léegi nit ñi dootuñu ko yor di ko tourné. si si. ah ba ñu ba doon def loolu amul ay 5D amul ay 7D amul te waxuma loolu nit ñi ñu ngi dem di gën a avancé ci technologie xam nga pour gën a mën a def ay production yi gën a baax ci côté son lumière daa may dégg. Mhm. gën a innové pour pour gën a dal. maanaam fi adduna bi jëm ci adduna bi fi film yi fi film jëm mhm. fi théâtre jëm fi vidéo jëm yow nga dem foofu ànd ak ñoom ba def ginnaaw parce que tamit loolu dafa am dafa am solo ci liggéey mais doo toog benn place loolu soo ko defee sax public bi ñoo ñu ko dem bàyyi si si bu fekkee heure xëy ni ñun ceebu jën bu xonk lañ bëgg ko kon li may wax foofu wax naa ko man ni leen bu jaree wala mu jot jar bi mooy du question jar maanaam xaalis bu ñu indi non concept bu ñu indi sëriñ ngeen war a def caaya war a def jànq war a def dara wala def faaru mbaam daf koy def mais nag du sëriñ ngeen mooy diriger scénario bu mooy diriger mooy am nu muy melal sëriñ ngeen ne ko nii ngay mel. Mhm. boo melee nii nii ak nii nga ma koy def nii fii ngay dëkk fii ak fii ngay dëkk nii laa bëgg nga waxee loolu sëriñ ngeen du ko décider mais bi mën na décider loolu. ok. alors Serigne Ngagne ñu gis ne euh, seen série Mbégteel démarré na beneen nouvelle saison en fait série boobu idée bi euh, nan la jógee. idée idée waaw Mbégteel xam nga nit sa métier nga am dañuy wax ni mbër. Mm-hmm. li ko dig rek mooy mu bëri. Mm-hmm. parce que mbër tey jii bu fekkee ni chaque jour yaa ngi dem dingee di entraîner dem saal yëkkati ay poids te amoo combat bu yàggee di nga seetlu leneen loo def nga gaay sa Mm-hmm. xam nga mbër bu ñu am nga combat da ngeen la fay cent millions wala cent cinquante millions mental bi ngay am bokku la ëppal ci réew mi solal ni ñay di entraîné attan poids bu kenn attanul mais ak boo amul combat ñaari mental yooyu duñu benn ku ne dans trois mois day bëri ak ku amul combat di entraîné mental bu benn kon artiste li ko jik mooy muy fexe def ay création mm-hmm. ah def ay concept am ay série teg ko jéem a xool ñan la ci mën a àndal ñoo xamante ni war naa mën a ànd ak ñoom pour liggéey jëm liggéey maanaam mooy sans mbetteel sans leneen ak leneen chaque jour war nga mën a nekk di def parce que sa métier soo ko deful doo liggéey kon mbetteel ni ñu dikkee lu naturel la comme ni yeneen film yi dikkee liggéey ko comme Pâques Bira comme le Ramadan de Serigne comme leneen ak leneen ay yeneen film d'accord mais peut xëy na orientation bi xaw na am différence tout par rapport ak li ñu doon def mooy bëggoon nañoo def série boo xam si format vingt six minutes la. Mhm. teg ko mais idée bi mooy ñu fexe ba créer loo xamante ni Sénégalais bu ko seetaan gis sa bopp xam ne lii kat diggaanu ko lii Sénégal loolu moo nekkoon suñu objectif te ci kàttanu yàlla am baaxam bu ñu am na luñ ci réussir buglu à cent pour cent parce que cent pour cent lu jafe la mais au moins ñu am quatre-vingt-dix pour cent li am solo li xam nga lan mooy cent pour cent mooy Sénégalais dégg la. Mm-hmm. jëli la xam ne lii nga bëggoon def soo amee loolu ci ñoom rek am nga cent pour cent même bu fekkee liggéey bi nekkul cent pour cent te yaakaar loolu yàlla defal nañ ko parce que sénégalais xam na ñun ñi suñu xalaat yëpp ak suñu bëgg-bëgg mooy def loo xamante ni Sénégal la ci biir ak su génnee biir Sénégal ku ko xool ni ah waaw lii Sénégal la parce que loolu dafa am importance parce que tey di nga gis benn nit wala benn concept wala benn série boo xamante ni doo xam fan la que man dama bëgg lenn lu nekk ñibbi këram. Mhm. fa mu dëkk ñu xam ne fii la dëkk. c'est comme boo gisee tey gii nii tey jii nii yaa ngi yor sa micro di ma laaj tey ku gis sa logo bi bu laaj parce que boo day xam ne fii nga dëkk looloo ko may logo bi tey boo taalee sa tel filmu indo yi doo laaj. Mhm. xam nga looy film la mais bu ñu soloo ba taxaw ak seen ay film ni muy déroulé seen ay mise en scène film bokkul kenn ku ci nekk ak sa film ni muy mel. parce que dëkk boo dem seen culture ak seen base ci seen seen i film yi di basé wu ñu mën a joxe dara te yow boo rombee film indo doo la ñu solo si si am yu ñu seen que loolu mooy seen aada dafa am doole ci biir film yi ñu adapté ko et ñun loolu en tant que ay sénégalais du ñoo bëgg film yoo xam ni boo xoolee rek ni wax waaw ñii waa Sénégal mooy nga nekk Inde mooy nga nekk Argentine mooy nga nekk politique mu boo xoolee rek xam ne ñii ay Nigériens lañ te xam nga loolu Nigériens yi réussir si ko seen film bi. si si ah ba boo demee Côte d'Ivoire ba Burkina ba Burkina Faso bi mais kon Sénégal dañu war am seen yëfi bopp comme tey jii ñi benn Baaba Maal bu demee Europe dem ay festival yi dina tànn bu solo taxaw looy gis est-ce que da ngay gis mu def costume takk karabaat daraa lay sol takk diggam gars yi teg ay gënn def ay kuur teg ay lay teg ay leket looy wax. Afrique ci biir Afrique Sénégal loolu dafa am dafa am importance ci li ñuy def ma ne ku fi bàyyi sa yëf di jaay yëfu jàmm kuy xool ku ñàkk fa nga tàmbalee ci yow li nga am ngay jaay keneen li mu amul jaay la kenn ku nekk jéem a jàng ci sa morom dara adduna bi avancé loolu ok euh, par rapport toujours ak série euh, Mbeyteel est-ce que yéen euh, xaaroon ngeen succès bu toll nii. waaye bu ko ëpp la ñuy xaar ñun bu ñuy def succès lañ ci parce que ba ñu xamee ba léegi ci kàttanu yàlla ak baaxam lu ñu mos a def yàlla tamit ci loxo parce que tamit succès mooy tax sponsor yi si si mooy tax nit yi seetaan succès mooy tax boo wootee Grand Théâtre gaa mooy tax boo wootee Sorano gaa yi mais succès daal néewul ci Serigne Ngagne succès néewul ci Adama Fall succès néewul ci Cheikh Seck mën ngaa def li gën a baax te doo am succès. si si mën ngaa def li gën a bon am succès yàlla moom moom succès sécuré parce que amul benn nit bu am pouvoir wala am benn kattan tey jii ñëw ñu xam la force dinaa dugg soxal bi nga bëgg ma ko te nit mënu fexe fexe ba nit bëgg loolu secret la biir suñu borom moo koy def kon kon kenn ku ne da ñaan yàlla may la ko yow nga am ko wala boo defee dara yàlla barke loolu nga mën ko ci li gën a baax mën nga ko def te nit ñi duñ ko bëgg mais xam nga lu am solo lu baax lu positif lu baax parce que baax ñaar la. am na baax boo xam ne ci yow la baax mm-hmm. te baax moom bu xam bu fekkee ni baax boo xam ne ci yow la yem képp baax boobu du baax baax bi baax mooy baax bi baax ci yow ba pare baax ci keneen loolu dañu wax baax mooy baax bu matale te loolu moo yombul mooy baax boo xamante nii tey yaa ngi def sa benn affaire mais sa yoon nekku ci nu mel baax na mais nan la baaxee ci yow parce que yaa ngi ciy a xaalis te xaalis nga bëgg mais est-ce que objectif bi loolu dong la war a nekk am na beneen baax bu war a am nga def ko am ci succès mu baax mais li nga war a xamal doomu aadama yi ci biir li la yàlla sédd muy ci liggéey sa liggéey nga xamal leen ko ci naka nga informer leen nga éduquer leen nga orienter leen nga wax leen adduna bi fii la toll nii la mel ku bëgg a mucc defal lii ak defal lii nga mucc am na fi yoo xam ne boo fa jaaree baaxu ci yow fu la yóbbu bon mais yooyu lañ ci xaar baax boobu beneen baax la te baax boobu moo ëpp solo te ñu koy xaar ci lii ñuy ci ok alors Serigne Ngagne ñu gis ne euh, da ngeen di tourner ak euh, benn maison de production collaboration bi nan la demee. waaw ñu ngi liggéey ak OK TV. Mhm. may profité sax di profité sax di nuyu ci occasion bi Moustapha Diop. Mhm. parce que depuis mberteel commencé première saison la ñëw pour laaj ko. Mhm. mais boobu boobu Mbetteel liir la. xam nga damay wax ne boo amee xar bu ndaw buy soog a judd. soo ko bëggee jaay ni da nga cee bëgg am yenn prix yi day day jafe ba ñu commencé mbetteel la tafaa ñëw bëgg mm-hmm. ñu ñëw waxtaan ci ñun ñëpp ak ñi ñu ci war a waxtaanal ma ne leen nanu bàyyi ba ñu def saison première saison ba mu jeex suñu defee première saison ba mu jeex xar mi dina màgg même bu màggul ba ma nekk li mu war a nekk dina màgg ba ñu xam ni moom fii ak un an wala deux ans xar mi nii lay tool si moment boobu nañ xam ñaata lañ mën a mu xar mi en attendant yàlla jàpp teg ci loxo suturaal ñu ba ñu def saison 1 mu jeex si la Tapha ñëw saison 2 bi mais mu nekk benn nit boo xam ne jàmbaar la mm-hmm. nit ku nangu liggéey nit ku ñemee liggéey nit ku ñemee jël ay engagement parce que jël engagement weesuwul nga ñëw jël ay centaine de tey def ko ci benn film di xaar am ci dara te wóorul sax ndax li nga dugal di nga ko ci génn am déet engagement la mais kon tey dañuy wax ne ci développement téléfilm Sénégal théâtre ak culture tey Moustapha Diop daf cee participer à quatre cent pour cent parce que bëri na ay série yooy gis yoo xam ne dugal na ci loxoom tey même bu fekkee gagné na ci dara baax na même bu fekkee baax na mais tey may na ay nit possibilité pour ñu liggéey te liggéey boobu peut-être artistes yi mën nañ ci gagné dara artiste nag li muy njëkk a gagné bu ñu yaakaar ne xaalis la xaalis moo ëpp am na solo trop baax ma trop mais artistes yi li ñuy njëkk a gagné mooy visibilité ndax tey boo nekkee benn artiste comédien wala nga nekk benn comédien nga toog benn temps bi gisuñu la liggéeyoo ah bu yàggee gars yi dinañ la fàtte. bu yàggee gars yi dinañ la fàtte même bu nekkee sa métier te génnoo bu yàggee dina la fàtte kon tey ki lay may opportunité pour que nga mën a génn ñu lay xool kon kooku am na lu muy def ci yow. Mm-hmm. mais nag bu fekkee ne artiste bi dañuy wax ne cachet bi muy am moo koy dundal. kon benn artiste du lekk du naan mais peut-être artiste seen ay link seen business ak seen ay nit ñoo leen ci génne pour ñu mën a lekk di naan seen ay seen ay li ñu bëgg a def ñu koy def normalement kon artiste bi amul lu dul nit ñi moo tax lu mu am public bi la koy delloo. d'accord alors Serigne Ngagne toujours ñu gis ne que daanoon nga joue benn série ci koor gi Serigne Ngagne ak koor gi bu amoon euh, benn succès bu mag idée boobu fan la jógee wala dañ la ko proposé woon. waa man man damay xalaat. Mm-hmm. dara su ma ko xalaatee woo gaay yi ñu leen am naa benn idée lii laa xalaat. Mm-hmm. su loolu amee gaay dañ may wax seen xalaat ñoom ñu ma lii ak lii ak lii leen gis ma woo scénario bi scénariste bi ñoo bind. boobu li may def yëpp parce que Samba moo ko doon bind moom su ma ko joxee ni ko lii laa xalaat rek moom pour mu jël ko pour développer ko moom du dara ci moom. mais toujours nag ñun mosuñoo génn parce que xam nga wax lu amul seede baaxul boo arrière nga dem ci ginnaaw xool li ma defoon yëpp mosuñoo génn ñun suñu lépp mooy lu ñu def rek cadre bi moom moom du génn ñun ñun suñu premier objectif xam nga gars yi dañuy wax naan affaire bi daa war a génn daa war a ñun suñu yoon nekkul ci loolu ñun affaire bi génn affaire bu waree moom mooy génne boppam mm-hmm. ñun toujours suñu intention bu njëkk mooy Sénégal yow noo génn Sénégal na da ngay ji Ah te Sénégal yi apprécié wuñu tey jii nii am na loo xam ne nii war na tax gars yi def attention war na tax ñu xalaat war na tax ñu xam ñoom ñooy kan ak lan lañu am ak lan lañ leen yàlla defal Black Panther bu mu génnee son bi kan moo ko def Baaba Maal lan la def demul am prix biir États-Unis nekk film boo xam ni gën nañoo gis sax film bu génn rek def bomb noonu Mm-hmm. looy dégg ay tama looy dégg voix Baaba Maal quatre-vingt-dix pour cent bi lépp culture Afrique la génn def li mu def tey sénégalais yi mën naa ne film bi soixante pour cent tey sénégalais ñoo ko gagné tama yi ngay dégg tëggkatu Baaba Maal moo ko def Baaba Maal moo def voix bi yaakaar naa su ma juumul ñoom baakal ñoo doon tëgg sabar mais tey lañ nga bëgg yow yow ci loolu la waa ji jiig gi tey ba dugg biir États-Unis bombardé ko yaa may dégg am succès boo xam ne film gëj na ko am tey jii yow nga bëgg a jéggi bàyyi fi li nga am di utu leneen te tey yow li nga am tey mën na la mooy lu nekk mais est-ce que ñun ñi ngi xalaat yow lan nga war a doy jàmbur ko war a da nga am lu toog loo xam ne ñëpp soxla nañ ko yow yaa gëmm li nga am li nga am jël ko nga exploité ko nga jaay ko loolu nag ci Sénégal gii lay commencé nga soog ko mën a génn pour yóbbu ko feneen pour jaay ko. si mais nag Wolof nee na kenn ku nekk ak sa façon. tojuñu bopp ji kenn ku ne yaa xam sa bopp ji nax koy tojee mais ñun moom suñu bos xam nañ man boog am personne man sama xalaat lépp mooy man Sénégal ma ñor parce que man amul fu ma demul ci àdduna bi wër naa fépp te fu ma dem demuma fenn pour doxantu wala dem fenn pour def ah di xoole ji lenn fenn damaa génn Sénégal am lu may génne mm-hmm. fu ma dem am lu may xaar pour mu ñëw jiwal leen histoire bi ñu fa def nit ñu seetaan suñu bëgg buñ paree ci bis seex rek ñu toog mën nañ ko am nañ fu ne théâtre moo ñu yóbbu fu ñu dem ci àdduna bi théâtre moo ñu fa yóbbu làkkuñu ay chinois làkkuñu ay anglais ay olof la ñuy wax nit ñi dañuy ñëw seetaan si ñu te loolu lañ soxla ku bëgg a xam lu ñuy wax nga dem fexe ba xam ko Bob Marley woyul ay français woyul olof woyul leneen anglais lay way mais ay fansam fexe nañ ba jéem a dem xam lu ñuy wax Youssou Ndour à quatre-vingt-dix pour cent da nga ko a dégg muy ay anglais lu muy way Youssou Ndour lan wax Youssou Ndour li muy way lan la tubaab yi ñu ngi koy ñu ngi koy consommé Bercy mi ngi fees feneen a feneen mi ngi fees buñ bëggee xam ne Youssou Ndour wax dañ koy dem jéem a jàng lu ci def man su ma yónnee ko ci. man laa li ma am moom ma ñor mooy sama ay valeur mooy sama culture loolu laa am loolu laay fexe nit ñi dem xame ci ko. ok alors euh, Serigne Ngagne ñu dégg ni dernièrement que da nga am euh, problème ak euh, partie scène de la série Adja est-ce que mën nga ci revenir nga expliquer ñu. loolu moom. Mhm. mille personnes woo nañ ma ay journaliste ay télé mais man wax naa ni loolu du sama wax doot du ma ci waxati. d'accord. parce que li ma ci war a wax wax naa ko. parce que nit ku nekk danga am jikko am noo mel. Mm-hmm. li ma ci waroon wax wax naa ko ba paqueté ko ba jël ko ba teg ko nee te yaakaar naa ni loolu ñëpp gis nañ ko koo xam ne gisu ko da ngay dem dugg ci net bi nga xool ko nga gis ko nga xam li ma fi wax leneen li ci des moom wax dëgg yàlla mm, du lu ma intéressé te du may lu may nekk du topp di waxaat mm-hmm. parce que benn wax bu génn rek benn wax gin tontu wax boobu mu fin c'est pas intéressant pour man billaahi du du lu ma war a nekk di waxaat sax nekkul sax loo xam ne waroon naa koo wax sax kon du warul du warul nekkaat lu may génn di waxaat loolu moom wax naa ko parce que xam ngeen ni ci moment bii nii yéen rek yéen rek te kilifa gi moo tax mais ci moment bi du moment sax bu ma war a toogaatee di wax parce que tamit nit koo gis da nga am loo xam ne sa bopp yaa ko moom mais am na loo xam ne sa génn wàll si nit ñoo ko moom te am naa sama nit yoo xam ne d'accordul sax pour may génn wax mais man su may génn wax nag du ma tàggu kenn su may xeex du may su may dem ci xeex yi du wax kenn damay def li may def ba pare mu jeex man noonu laa mel mais nag pour le moment nii mooy loolu duma si wax xëy na peut-être beneen beneen instant mais pas. d'accord alors ñu gis ne instant bi euh, dañoo toll ci benn période bu assez particulier mooy à savoir euh, coronavirus est-ce que euh, feebar bi daa am lu mu impacté ci seen liggéey. mais bu baax loolu koy tamit Adja yaa ma ko gën a xam. Mhm. ku xëy la doo génn sa kër. ku xëy ñu la yow sa jabar sax warutoo koo jox loxo warutoo nuyu sa doom ku ñu warutoo jox sa loxo sa jabar loxo yow yow waxutuñ la nga dem liggéey loolu àdduna bépp ñoo ko yëg ñun yëg nañ ko bu baax mais tamit bu pexee amul pexe bu amul looy def li ñu war a liggéey liggéeyuñ ko. waar yi ñu doon bay amatul. Mhm. affaire yi doxatul. sponsor yi ñëwatuñ joxeetuñu xaalis loolu metti na te nga nekk borom kër nekk kilifa nekk ay nit yoo xamante ni peut-être sa famille sa kër parce que bu ñëwee sa kër la kër dafa yaatu sa jabar ak say doom sa famille la ñu say sœur ak say frère ak seeni jabar ak say seen doom sa famille la te am na nu la yàlla di mayee tour ak benn position ci benn famille bi am na yu bari yoo xam ne. mën na reposer sa kaw te doo mën a daw responsabilité yooyu da ngay da nga koy gàddu mais nag yàlla rek moo fi nekk yàlla rek moo fi nekk. alors Serigne Ngagne est-ce que euh, yaa ngi dund ci sa art. maa ngi ci sant yàlla. mais ban mooy euh, cachet bu gën a mag bi nga jot euh, wala loolu. yow rek maa nangoo wax ñaata lan lay fay par weer. wax ma ko ma wax la sama casier. non man maa leen a laajte ah, la man maa la laaj sànq may laaj laaj nga ma mille questions ma laaj la benn kay tontu ma ñaata lañ lay fay doo ko wax ah ree nag. d'accord à part euh, euh, euh, théâtre bi ci lan ngay yëngu. man ci théâtre laay yëngu. Mhm. mais ci biir théâtre. dama mhm. ci def samay ay business man. comme quoi par exemple. waaw loolu moom mënu ma koo wax moom. lu tax. ah mënu koo wax. d'accord am naa damay damay def damay def sama affaire damay def sama yeneen affaire xam nga waxoon naa leen Tyson waxoon na fi làmb business ñu naan non du bër Tyson lii man leen xamu leen li xew de da ngeen dem jàngi li Tyson wax lan la. Euh, business da ngay dem làmb bu amul business nan la nan la ñuy fayee cent millions bu amul business nan la ñuy fayee deux cent millions. ok alors euh, on passe à l'avant-dernière question. tey comme par exemple benn jeune bu ñëwoon gis la ne dafa bëgg a dugg ci euh, milieu bi ban conseil nga koy jox. dégguma la bu baax. benn jeune ñëw gis la ne dafa bëgg a dugg ci milieu bi ban conseil nga koy jox. ah xam nga nit ci lu bon ngay nekk nit ñëw bëgg koo def nga ne ko bul ci dugg parce que baaxul. Mm-hmm. mais bu fekkee da ngaa nekk ci lu baax ku ci dugg. Mm-hmm. da nga naan ko duggal mais duggeel nii. Mm-hmm. man li may wax sama bopp ci ma toog nii. laay wax jeune bi soog a dugg ci théâtre mhm. wala ku bëgg a def cinéma moo xam yaa loo bëgg a def mooy il faut ñu xam d'abord métier bi mooy lan lu ko tax a jóg ak lan lay wax ak lan la war a def ak lan lay def parce que loolu am na solo parce que waxkat bi nee na booy def te li ngay def xamoo ko boo noppee ki nga koy defal du ko xam mhm. kon kiy def d'abord moo njëkk war a xam li muy def nan booy def tamit te li ngay def jugewul ci sa mu munoo fexe ba dugal ko ci xolu doomu aadama yi kon bëgg mu ngi noonu il faut bëgg mooy base bi bañ ciy dugg ndax damay siiw bañ ciy dugg ndax damaa bëgg euh, tukki non yooyu ay yu kenn xamul la mais bëgg duggal ndax d'abord base bi da nga koo bëgg gëm ko mooy tax lu mu metti metti nga mën faa toog di xaar man dama daan dem répétition du ma reer mm-hmm. dama daan dem répétition su ma ñëwee duñ ma faale parce que dañ ma demal liggéey may daw liggéey di dem di répété ji. Mhm. may dund ay affaire yu metti suñu biir kër. mais boobu xam naa li ma bëgg xam naa ne bëgguma bon du ma tux du ma naan du ma tux yàmba te du def lu bon mais lii yàlla bëggaloo na ma ko bëgg naa ko te lu ma ci am bëgg naa ci teral suma ay waajur. mais instant boobu peut-être est que ñoom comprendre nañ man li nga xamante ni mooy daw ci sama biir xel te peut-être mën naa ko wax te ma gëm kon li ma am mooy naa puus rek. ba bu ma àggee ci moment boobu rek du doon wax damay jëf nii ah man kat yaay papa man lii laa bëggoon peut-être mais day metti mais nag lu yàlla teg loxo rek moo am solo nit mën na am milliard du ko jëriñoo nga am ñaar fukki junni mu jariñ la parce que barke moo mooy nekk foofu mais man maa ngi sant yàlla bu baax ndax lu ma am aara ma ko may fu ma dem aara ma fa yóbbu ku ma xam aara tax nga xam ma te ci kattanu yàlla ak mbaaxam sama benn buntu tëjuwul ndax aar bare la nag amul solo mais barkeel la moo am solo kon yàlla nañu yàlla defal barke. ok alors euh, est-ce que mën nga ñu wax sa benn anecdote wala benn euh, loo xam ne ni marqué na la bi nga commencé euh, def théâtre ba léegi. waaw dafa bari nag. dafa bari na nag. jox ñu ci benn exemple bari na joxe naa ci yu bari ah. non non mais genre pour ñi di la déglu ak ñi di la kii jox leen benn anecdote. comme. loo xam ne marqué na la. waaw oh, li ma marqué bari na. comme. parce que xam nga artiste li ko war a njëkk a marqué pour man. mooy nga def succès sax te yëgoon ni def nga succès. lu doy waar la waaw. nga def succès bu rëy ba ñëpp xam ne def nga ko te yow yëgoon ni sax succès ba am na. dañoo nekkoon benn moment ci suñu groupe bu mag bi muy jànqeen. Mhm. ñu génnandoo saxaar gi la contrat ak Serigne Gagne parce que production yi dañoo tegaloo génn. Mhm. entre 2001 2002 2003 dañoo tegaloo. mais affaire yëpp bu ñu génnee dañoo def bomb dañoo tas Sénégal boobu xam naa ne yow xam nga ay deux ans am. Mhm. affaire yi def benn bomb boo xamante ni ñun yëguñu succès bi comme bu ma nekkee Yoff nu ma doon ànd ak suma gars yi ñiy dem géej ma ànd ak ñoom. ñu dem plage dimanche. Mm-hmm. ma def sama short man na daaw ma def yaru bu neen di sangu. Mm-hmm. ma def sama short sol benn civilement di sangu. Mm-hmm. mais dama jékki-jékki gis nit yi di daw nit yi di daw boobu maa ngi yoof côté Tongoor. mais dama gis yoof ci kaw ba côté jàmmalaay nit yi di jugee foofu di daw nekkate information bi mooy daw. sëñ Gueye moo nekk fee ci place bi sëñ Gueye sëñ Gueye. mais ma jékki-jékki mel ni dañoo duy ndakaaru ay nit ba mu fees këpp lañ ci géej gi jour boobu dañ ma dugal ci benn benn buvette bu doon jaay ay boissons tëj ma fa gars yi dañuy yëkkati buvette bi pour génne ma. ah bon. bi indi fa benn problème bu ngande boo xamante ni te boobu man ñi ma àndal ñi ngi bañ nit ñi dal sama kaw pour gaañu ñu ni léegi nañ ubbi fenêtre bi nii pour ma taxaw tàllal gars yi loxo pour ñu bàyyi ma dem ndekete loolu mooy pikiir gars yi. biñ ko ubbee gars yi nag dañ ni léegi nag naa génn nag. ñu wax wax gars yi nañ génn fekk am ay moo lu jóge woon géej ñoom du soog a teer ak seen gaal ñoo ñoo bombar ji mhm. ay lébu ñu ne man eh indaa a génne si biti wala in in in yëkkati ko baar mi teg ko fa ne in génn ko ma xam ne problème am na gars yi xam nga léegi lan léegi buntu bi ci ginnaaw la ñuy ubbi fekk ut nañ benn oto mu gaare ci ginnaaw ñu ma gis nga buñ ko ubbee rek dawal wax ak borom oto bi la tant que gars yi uti oto ñu ngi organiser public bi ne leen bon da ngeen di pousse ngeen mais nit ñooñu ak gis nit yu tool noonu loolu kenn mënu ko organiser mais ñun nax nañ leen parce que la tax gars yi taxaw naa leen def leen nii parce que mën ngeen koo gaañ ak kër gaa gars yi ut nañ oto ba oto bi gaare ubbi buntu bi gars yi ubbil ma ci ginnaaw rek ma ma ma mel ne ma ma def benn 100 mètres boo xam ne kenn su koo gis dugg ci oto bi mais jour boobu xeer yi yat yi lu ne la doon naaw topp ma bi ma ñëwee sama kër yoof dañoo foogoon ne sax man damaa doon sangu lap peut gars yi génnam ah bon ba ma toog ba dal ma expliqué leen affaire bi mu nekk benn affaire boo xam ne peut-être ci moment boobu noonu xaaruma woon loolu léegi nag affaire bi defuma dara parce que boo nekkee artiste nga judd ci màgg ci yaru ci yàgg nekk ak ay artistes yu mag am na yoo xam ne bu dikkee rek da ngay xam li ko indi parce que doxoo ci mbedd mi rek loolu ñëw dangaa am loo def ba loolu ñëw mais action boobu du dara daf laa war a jàngal ni léegi nag war ngaa changer ci lu bari ndax mbir mii ngay def am na fu mu la jële am fu mu la yóbbu moment bi bi nga fi nekkee tollu fii liñ naan xale bu am deux ans trois ans def yaramu neen solul tubéy génn ci penc mën nañ ko eh duggal ci kër nga solul tubéy mais am na âge boo xam ne boo fa tollee def ko boo génnee dañ lay duma kon am na lu mu la jàngal ni war ngaa changer ci lu bari war ngaa am noo mel lii ngay def nit ñi ñi ngi la ciy bàyyi xel ñi ngi la ciy sóor ku nit ñi sóor nag di la bëgg boo deful naa ñu am lu ñu roy ci yow bu nit ñi demee ba war a roy ci yow nag amal noo mel loolu dong la lay inspiré loolu la jàngal du leneen de jàngulu la ñu naan da ngay sol dàll bu see rek da ngaa war a sol lu rafet du yooyu de yooyu ci la mais du yooyu comportement bi nga war a am boo xamante ni bu la nit ñi xoolee mën a jàng ci yow dara am na solo nit nag ñëpp am défaut mais des fois am na loo xam ne da nga ko geer yow soo ko amul uti ji ko pour nga am ko parce que nit nga koo xam ne dangay génne génn nit la xool maa waa ji àndoon nañ Maroc daaw dem ziyaara ji mm-hmm. Cheikh mais bu ñu demee dugg ci rawdu Cheikhu Tidiane ziar ko bu ñu génnee ci tali bi day fees del kenn du mën a dem kenn du mën a dikk ay junni nit ay ñëw ci yow ñoo xam ne ay Espagne lañ jógee ay France ñu daje fa ak ñoom ak yeneen dëkk yi ñu ñu jógee Sénégal dem ñu daje fa du ñu am occasion gis la nga daje ñoom ci milieu boobu foo xam ne du théâtre du comédie dañoo dem pour ut yiw dañoo dem pour pour suñuy bàkkaar yàlla baal ñu ko ci benn nit nitam boo xamante ni gërëm na ko ku toll na Cheikh Tidiane mais nit yi dañuy ñëw ak benn cofeel ci yow parce que tey jii nii soo génnee di def yëfu dof ba day am yàlla moo la sédd loolu kon loolu nag da ngay xam ni nga koy téye bien que nit ki mënut a ñàkk muy def ay ay ay ay ay mais tamit nga xam ni am nga noo war a mel daal jëm cee tabax sa bopp jëm koo xeex ak sa bakkan jeex na du leneen ok Serigne Ngagne interview bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, ñu la doon déglu ak ñi la doon seetaan. mais xanaa di di di leen remercier yéen encore une fois euh, di remercier public gu Sénégal bi yëpp euh, ak waa réew mi TV ak réew mi FM di wax président Mbagnick ñu ngi lay gërëm di la sant. parce que Sénégal kenn ku ne da nga ci am wàll lu ñoo wax ne kenn ku nekk bu liggéey wàllam rek dëkk bi avancé mais yow cër bi la yàlla jox ci réew mi daraja bi nga fi am ak marta bi nga fi am ak waar wi nga war a bay bay nga ko ba mu mat yow réew mi la deseel mais deseetoo réew mi dara parce que lu ne lu ne defal nga ko Sénégal fu ne taxaw nga fa Sénégal représenté nga Sénégal fu ne ci anam yu mu gën a rafetee yëkkati rayee Sénégal fu ne kon yow réew mi ñoo la amee lu lay lu lay santé di la ko gërëmee di la wax nag yow baax lañ la xamee bopp ba genn mais nag loo baax doyul dollin parce que réew mi ñoo la soxla da nga bëri loo participer ci réew mi li tax Youssou Ndour taxaw Bercy yuuxu sa tur ca kaw way la Youssou Ndour wayu la rek pour dara parce que dafa da ko neex wayu la rek pour dara parce que dafa la bëgg a way mais dafa xam li nga liggéey ci réew mi ak fi nga toll waaw ak li nga yàgg a toog ak président muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall du ko wax lii war naa am lii war naa am ndax jeunesse bi lii war naa am lii war naa am ndax réew mi dem ca kanam dama ne loolu du benn du ñaar du ñett te li may wax làmbatuuma ko lu ma xam la lu ma fekk la yow am nga mérite mais nag da ngaa am loo loo nekk ci réew mi mooy loo dem ba yaakaar na nga ni loolu nga doon ci réew mi noonu nga toll ëpp nga loolu kon loolu liggéey doyul kon ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di wax télé bi na dem ci kanam rojo bi na dem ci kanam na lépp dox ndax yow dara ñoru bu la sa bopp ñoroon da ngay toog kër ga mais réew mee la ñor Sénégal moo la ñor jeunesse bi moo la ñor jàppale président moo la ñor ba li mu bëgg lépp à 100 pour cent mu réussir ko kon ca kaw ci kanam di remercier waa Mbetteel tey nag sama kilifa la fee nekk muy bàyyi seex Seck di sama goro et que moom tey jii nii am na lu bari loo xam ne ci aar daf ko def ci man bu ma génnee tele moo tax ma génn su ñu xamee Serigne Ngagne Cheikh Seck a tax ndax moo ma fekkoon may répété nekk ci ay ruq di def ay festival di dem ay semaine de la jeunesse di def ay compétition mu mu jot ci moom pour kees am troupe muy wër di xool yan talent laa war a jël pour dajale leen pour def leen benn groupe boo xam ne mooy représenté kees mu tànn ma kon tey jii olof nee na bu léeg-lékkee olom na ko gërëme cooy su dul woon ak moom peut-être du ñu xam Sëñ Ngagne wala nañ koy xam parce que ci keneen laa jaar ndax loolu ki mu njëkkoon na nekk yéene mooy jibi sàmb bi nekkoon daaree Kocc bëgg a taxawal dara kees far yàlla weddi loolu yàlla jaarale ko ci loxoom ku santul nit doo gërëm yàlla kon moom ñu ngi koy wax bu baax ca kaw ca kanam parce que lii moom la di sant bépp artiste comédien Sénégal nag góor ak jigéen rawatina ñi nga xamante ni ñoo bokk fa nu jógee muy kees di wax ni liggéey bi nañ ko jàpp bu baax ñu am ci am ñu bañ kee am parce que yàlla séddee nañ ko ba pare nit ñi bëgg nañ ci ba pare mënatu ñoo def ci leneen soit lu dul lii tey boo bàyyi woon dina am ñetti nit wala ñeenti nit yoo xam ne duñu du ñu reer ndax bëgguñoo gees gis kenn ku dul yow am na ñoo xam ne Cheikh Seck rek lañ bëgg gis am na ñoo xam ne Adama Fall rek lañ bëgg a gis am na ñoo xam ne Sanex rek lañ bëgg a gis am na ñoo xam ne Zozo rek lañ bëgg a gis am na ñoo xam ne Alaaji Góora keneen keneen ñii Ruba Sëy ñii Ndey Siin ñii belaa ñii Ndey Njaay ñii ñu ñu adduna noonu la kenn ku ci nekk da ngay séddu rek mais dooni damay jël cër yëpp dama ne olof nee na ku bëgg a jël li gën a duuf ci ndab li jug fi kon musal bàyyi sa ay moroom mus di wax ni gars yi lii ñu waxtaan du Serigne Ngagne moo doon wax mais ab Abdoulaye juuf moo doon wax il faut ñu xam différence entre Abdoulaye Diouf ak Serigne Ngagne différence sëriñ gañ ak Papa juuf différence Papa juuf ak la Ramadan de Ngagne benn bu ci nekk bokkul benn bu ci nekk am na lu muy def te bokkul ak moromam yooyu nag suñ ko munta séddale ba xam leen lu nekk fii la tàmbalee fii la yem musiba day am te du doo mën a def foo toll di wax loolu nit yi mais nit ñi ci seen xel olof nee na junj doy na boroom xel am na loo xam ni mën nañ la ko bañ a wax nga xam ko yooyu yëpp bokkul kon donc ñi ngi sant yàlla di ñaan yàlla ñu métier yàlla teg ci loxo ba képp ko gis artiste comédien nga naw ko ginnaaw naw bi nga ko naw nga mais ginnaaw yéene bi nga ko yéene nga ñee ko parce que da ngay fekk mu mel noo xamante ni yow noonu nga bëggoon a mel loolu ñun amuñu ko yàlla moo ko am mais yàlla ñu ko yàlla defal mais di wax autorité yi ni nañu jàppale artistes yi comédiens yi parce que dañoo sonn liggéey bi ñuy liggéey pour ñu am ci dara ay millions moo koy def yu dul jeex yu bari te amuñu ko dañ koy uti ji te am nañu yàlla baaxal ñu am teraanga mën cee dugal seen loxo nañ ko ci def parce que liggéey la boo xam ne dafa war a dox jëm ci kanam tey tey tey bu ñu woon lii na taxaw ñaata nit ñooy nekk di di chômer doo xam ñaata nit la tey jii nag tey li Nigéria yi am nga xam ne tey benn milliardaire mun na ñëw fekk benn production mu dugal ci un milliard moo tax tey mënuñu leen a dab du dañoo mën lu ñu mënul lu ñu man mën nañ lu ko ëpp mais ku la ëpp xaalis xaalis moo def production li mu mën a def munoo ko def parce que lu mu bëgg a def def ko mais tey su fekkee da ngaa bëgg a def war a def tey su ma la bëggoon woo war laa fay xaalis aw ma xaalis du may def damay négocier ak yow mais tey su fekkee maa ngi sama xaalis dama lay hee lii laa bëgg nga defal ma ñaata laa lay fay temps ma fay la kaay defal ma ko moo tax xaalis moo def ak ci lépp d'accord boo bëgg da ngay tourné am nga xaalis abal leen ma abuluñ la da ngeen may luyee luyee leen ma ñaata ngeen may fay temps nga fay xaalis moo koy def mooy loolu kon nañ ci dugal seen loxo pour affaire bi dox nañ ci jàpp même pas jàppale Serigne Gagne mais artiste bu la gën a jege nga xam ne ni ngi ci lii nga xam ne am na talent deful lu yàq tayaat deful lu yàq réew mi mais dañ ko war a jàppale ñëpp lañu war a jàppale pour affaire bi dox affaire bi dox bu ci benn côté lay doxee déedéet affaire bi foog mu doxandoo fépp pour mu mën a àgg fi mu war a àgg mais pas ci benn côté rek mu fay dox du doxal affaire bi de fépp la war a dox na loolu laa bëgg nit yi xam ko kon ñu ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne bëgg nañu culture bëgg nañu théâtre bëgg nañu série yi ñuy def ak téléfilm yi te ñu man cee def dara pour jàppale gars yi ndax gars yi dañuy am ay difficulté dañuy am problème xaalis da nga yor cent millions pour affaire bi nu ko vite lekk ngay taxaw di utiwaat xaalis di lebe ji ay xaalis pour tourner kon ñi nga xam ne yàlla baax ni leen ñu mën cee def dara nañ ko ci def du nuy groupe Mbettel yëpp euh, bañ a lim parce que day gudd mais scénariste si ak ñi nga xam ñoo nekk ci côté technique réalisateur caméraman yi réalisateur Badou Ndiaye vraiment et Mansour parce que day sonn ci production bi en tant que manager di sonn ci Zahir ak ci baatin fu ne mu ci jàpp ñooñu tamit danga leen di da nga leen di remercier encourager leen parce que kenn ku ci nekk sa liggéey yaa ngi koy def ba mu mat góor ak jigéen groupe bi blog bi yëpp maa ngi leen di wax ca kaw ca kanam ñu jàpp mu dëgër wasalaam. voilà chers téléspectateurs et auditeurs li lañ leen andiloon tey ak seen daandaan Serigne Ngagne merci de votre attention maa ngi leen di jox dig daje semaine prochaine ak beneen artiste d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous